جئت بالقصيد سافرا لك به وقد يقد فلك زدت قصيدتي في سكولا ولا تناجيا بي كفاني الكمال وجعل الأكرم أنفع الكرم وتدري بخير رد من زرم أسأله كون في الخزينة غريبة عادة مفيدة Hey!

عرفت للمراد قائلا مع السفايل باعتا لو خايلا Oh, رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا يعلمون حمد وشكر وتقبل الخدم مني لمن له الوجود والخدم حمد وشكر وشكر وتقبل القدم نفعل البقاء والمخالفة العبد ذا القديم لا مخالفة إلى الذي القيام بالنص وجب وصلت إخلاصي وجاب قد كفاني كل در وحده لله رب العالمين وحده وقد كفاني كل در وحده له شكور الدهر بالنزيه أراد حكم ذو العلم وذو الحياة بما يسفي أبد الحياة

الهديان من المكاره والجمع قديان بالبجة وبالنعام يا فاضل الفضل ابو القلعان الرزاق ما حد عني ما بك النفاق البرد والإعفاق بك كما بك اعتلى الحداق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق لديك ذا الجلال والإكرام مقسط يا جامع يا غني يا من منه أكفني قبول سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئته من الولاء يا مغني يا من به قلبي دواما قانع وحاضني عن الأذى يا مانع يا من يقضي البلاء والبدران وكلما يزول قلبي يا غار يا من جدي أنيبنا المنافع وليغفر بفضله يا نافع يا من فؤادي أبدا ينور بكونه أبدا يا نور يا من هم صرف بالتهادي وأعطني فوق المنايا هادي يا من لك علي شكر ببديع على أيادي العذاب يا بديع يا من يضمني إلى السباق لحسن ظني به يا بابي يا من به كسب كل حارس قول قليل بقيرتي يا وارث ومنك يأتي قلبي الترشيد على عام والسماء يا رصيد يصلح لي كتابك المذكور بفضلك العظيم يا صبور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 alhamdulilah Wow. والرحيم هاب لمن يحبون كما يمحو الرهاب بالله والرحمن والرحيم هاب لمن يحبون كما يمحو الرهاب لوجهك الكريم وجه فرجاء بلا أسى لمن يديمون الرجاء هب لذوي الإيمان والإسلام خير بسارات بلا ملام موت در عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبسكور بعق وجهك الكريم هب له إجابة يا من نحوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بخريب ومجيب سميا بالله والرحمن والرحيم يا من بخريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فئنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في اسبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf ci turam ak kàddoom lañ leen di jottali li ñuy bëgg a wax di leen jot li kàddu yu sëriñ bi ak i cantam ak ngërëmam ni ko sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif waxee léegi sëriñ bi yónni ñu boole ma ak ñoom wax ne nañ ñëw teewal ko ci bis bii nga xam ne ñëpp xam nañ ci yéeneem nga xam ne ñëpp xam nañ ci yéeneem moo daan ñëwal boppam di ko fekkeel boppam moo daan ñëwul boppam di ko teewal boppam ndax diggam ak njëburu sëriñ soy ak diggam ak xasit yi kon lii sëriñ Abdou Samad wax léegi mu ngi tàbbiwaale ci biir kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax kàddu yépp dafa tàbbi ci biir kàddu loolu war a sëñ Abdou Samad wax ne kàddu yi mu waroon yëkkati ci ndigalul Serigne Cheikh mi nga xam ne moo fi jël Serigne Soxna te di kilifa kër gi di kilifa jataay bi li mu waroon jot li ci turam jotti ko ci turu Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadou Fadil waaye jot li ko ci ki nga xam ne moo tax ñëpp daje fi muy Serigne Hamsa Mbacke Serigne Soxna kon ñi ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. di njabootu Serigne Touba waaye buñ Serigne Cheikh Fall Mbawar moom itam ndax bépp jataay bu ñuy defal Serigne Touba bu fa njabootu maam Cheikh Ibra Fall teewee bu ñu fa yëkkatee kàddu lu war la moom itam li ci wax ci wàllu taalib bi ak au soññe yóbbaale na lépp kon lu ci waroon ci taw jeexal ak irshadaat lépp àgg na kon liñ ci waxaat rek mooy sant santal sëriñ bi ndax sant moom suñ boroom ci boppam nga xam ne doylu na wëlis lépp loolu rek la am ci jàmm te wax ne al abdu lam yashkur nii maa lam yashkur man ajraytu ni'matan ala yadihi cant nag ni ko suñ borom séddalee ci alxuraan ñett rek la cant ki nga xam ne da koo yëg muy ci sa xol ak sa làmmiñ ak say cër cant gi nga xam ne sa xol la mooy wa ma bikum min ni'matin fa minallah cant gi nga xam ne ci salaam yi lay jóge nag mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis mooy li Sëriñ Tuubaa di wax ci xasida yi ba ca des nag mooy cant gi nga def ci say cër mooy i'malu ala daawuda shukra waaye nag suñu boroom xam gi mu xam ne sant lu jafe la moo tax mu ne wa qalilun min ibadiya shakur kon nag moom xam na ñi koy sant ak ñi ko bi alahu bi shakirin kon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp mboolem ko fi teew te bis bi yëkkati na nga ñëw dundal si xaside yi ànd kook sëriñ Hamsatu sëriñ bi ngi sant bu baax a baax di sant sëriñ Hamsatu moom bu baax ci ni mu ko ko daa seere laa bu jot ndax liggéey bii kat suñ borom jagleel ko defal ko ci tawféex ndimbalul yàlla la waaye tawféexi Serigne Touba la ndax xaside yi moom mooy liggéeyu Serigne Touba Serigne ci la doon jaay jihaad diggan digganteem ak boromam ci la doon liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo doon moom la doon déyaanee ak boromam kon xaside yi mooy mbootum Serigne mooy lépp Serigne kon nag. ndegam dafa dëddu lépp dëddu àdduna soxlawu dara dëgmal Sëriñ Tuubaa te jaare ko ci xasida yi loolu kon bunt bi mu jaare ñëpp loo ci nekkaleen kon ñu ngi koy ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne lii muy def lépp sàkku ngërëmam la ciy def yàlla na ko ci gën a defal ndimbal ko ci tawfeex defal na ko ci ba ndax bis yi kat bari na bis bu ne dégg ngeen ko fi waaye bisu xasida nag bu fekkente ne amoon na it ci moom lañ ko njëkke gën a ne ba mu tasaaru ba yaatooy àddina sëpp du ko def loolu na kon lu ko Serigne Touba denc loolu kon nag yàlla na ko yàgg liggéeyal Serigne Touba ñëpp itam yàgg ko ànd ak moom ndax lii kat ku ko ci fekk ku ne danga xam ne fekk nga ko ci la ko war a fekk ndax Serigne Touba moo ñaanoon suñu borom ne ko wa hab lana zurriyatan tudimu al amal as saaliha yaa qadim kon loolu bu àddina tukki du fi jukk ndax fàgguteef Sëriñ Tuubaa la boo xam ne da ko fàggu ci ak njabootam mu nekk ci ay sëram wa jaalaha kalimatan baaxiyatan fi aqibihi kon loolu képp ku yàlla defal tawfiix ngay xeeñtu jeexe jooya képp koo xam ne bëgg nga lu baax kat war ngay fexe ba di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne muy dëgëral mu gën koo dëgëral yàlla mi nga xam ne mooy sàmm mu gën ko sàmm sàmm itam kilifaam yi ndax yoonu murid kër ku ne xam na li muy doxe ndax moom mii kat li muy yëngu-yëngutu ci nii gis ngeen ni mu def kilifaam bu agsee seen kanam kal may jiti bañ lay de xaasil yi loolu nag Sëriñ Tuubaa moo ko moo ñaale ak yoonu lu mu lay yëkkati yëkkati rek la lay yëkkati mooy ak taalibe loolu nag moom yàlla defal na ko ci defal na ko ci dafa xam na ko te mu koy dund loolu nag ñun ñëpp yoon woo lañu war a jaar te di ko sàmm te xam ne kat buñ ko buñ ko sàmmee suñ bopp lañ ko defal buñ ko sàmmut itam suñ bopp lañ ko defal waaye Serigne Touba am noppi ne ci diggam boroom noppi ne ci ab liggéey xasay di itam lim ci wax doon na sëkk xasay di yi ñu fi doon jàng léegi ndax moom foo gestu rek bay doo njëkk jot mu doon sëkk ab seere tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan xal bila xalwatin ab xa kama axna kon xasayda xasayta bi moo gën a gaaw ci àggale nit ci borom waxaat waxaati na xasaayid yi faaxat suyuxu tarbiya kon xasayda yi képp koo xam ne taqoo nga moom na la wóor ne yaa ngi taqoo jeexit Sëriñ Tuubaa képp ku taqoo moom itam yaa ngi jëm ci jeexiti Sëriñ Tuubaa te newoon nit kuy topp ay jeexitam fu mu fekk nga fekk fu mu nekk nga fekk ko sëriñ Abdul Xaadir nit mastaa ñëw ci moom sonal ko lool di ko laaj tur yàlla ba mu ko ci dëjëlee ba mu yàgg si Abdul Xaadir yëkkit génn xasida jox ko ne ko daa nga doon laaj aw tur mu ne ko mu ne ko jëmma ngi ku doon laaju tur ba mu jox la jëmm la nga doon bëgg am nga ko kon xasaay bi nañ xam ne mboolem li ñaan ci asmaullahi alxusna yi lépp sëriñ Tuubaa daxañ na ko ci biir mboolem lu di sàkku ci lu baax te sellal ko xasida yi ci gën kon nag yàlla nañu yàlla dimbale dafa ñu taw feex te xam ne kat Sëriñ Tuubaa lim ci deeyaale borom bari na lool te lépp itam la mu waxoon Sëriñ Mbàkke Jaxate njaariñ lépp da ko waxoon ne ko Mbàkke lii ngay gëf gis ma di koy wax ci sama xasida yi diis na ci man lool ndax amul ci jenn doom soxna jum neex ci moom muy jàkkaarloo ko nawleem di leen wax jii ma wax sama biir xasida waaye lu ma sinte ñàkk génn la kon mooy wa ammaa bi moo tax mu wax ne qultu wa xasdiya tahaddusun bi ma lii qaadahu wala yurini niqaba kon Sëriñ li muy wax ci xasida yi ci mbóot loolu nay xam ne lépp noonu la demee ndax moom li ëpp ci xasida yi am na ci wax xam ko bind sànniwaat ko ci biir géej gi ya ci ëpp itam da ko bind def ko ci ay gaal tëj ko diir bu mu fi nekk lépp ci xasida yi kenn gisu ko kon moom li mu ci wax lu ko wér la diggam ak boroom muy lu mu ñàkk génne lu mënta ñàkk wax waaye xasida yi mboolem luñ ci wax dara daraja ak màggam asakay asak je sax waxuñu kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te di ko sellal te di ci def pëstéef wa ida dégg naa ko ko wax léegi wa ida quri al quraan fastamiu lahu wa ansitu xaside itam noonu rek ko war def ndax xaside yi ci biir alxuraan la ko suñ sëriñ Tuubaa tibbe kon fu ñu koy yëkkatee wala ñoo ko fay jànge ñëpp dañoo war ne tekk di diglu ndax ku baax gat noonu la daa def ci alxuraan xasaay di itam fu ñu ko mosaan di jànge lépp danaan tekk moom ci boppam mooy jug di leen teral boppam di yëkkati ay ñam di leen jox ndax dégg ngeen ko ca njaareelu bis ñuy tagg rasulullahi ca xasaay bi lu sëriñ bi jële ci biir xëpp leen bu assee ñu ne ko ci saakumullah yàlla yàlla fay sëriñ bi di yokk rek saa su delsee nit ñi defar ko ba mu yàgg ñu mujj bàyyi xam ne lu ñu gën a yàgg rek sëriñ bi bàggante bi metti na ci moom ñu mujj yërëm sëriñ bi ci bàggante ñu daal ne ko mbàkke de lii defar di suñu lool mooy la li fi bàyyiwul ne de du ma bàyyi ndax baat bi ngeen waxee de da ngeen xamul li na ci jasaakumullah jaam jaam bu defal yàlla ba yàlla gërëm xamul leen la ci suñu borom di daale kon xasaay bi lu mat a jàpp la te fonk ko te xam ne kat Sëriñ Tuubaa ci barab bii fi la gën a jëkke ndax maag sëriñ Abdou Samb mii toog nañ ci kanamu sëriñ Saliou ci kori bi nga xam ne moo la fi sëriñ bi mujj fekk ci waxtu takkusaan ñu toog maag sëriñ bi ñu waxtaan ci mbirum sëriñ Touba lu kiimaa ci ak génte ba ci yàgg sëriñ Saliou laaj lu mu doon ñu nettali ko ba ci sëriñ bi daal ñu nett nañu sëriñ bi de toog nañ ci njaareem di waxtaan nit ñi ba mu yàgg mu def loolu mu daa def mel na ku fi newutu di deeyaale borom ba mu del siwaatee rek mu daan ne xanaa li ma def di jaaxal na lool ñëpp ne tekk ne ko mbàkki am nañ ci jaaxal mu ne suñ borom de moo doon xamal ne képp koo xam ne aju na ci yow dana tàbbi ajjan ci desu ko xisaab daay waaye waaye ana aju gi ne nu muy wére mooy képp koo xam ne bu ñu yëkkati sama xase di nii dana yëngal sa xol tàggal laa sa bopp foo ko fekk rek xamal aju biir waxoon de itam nag ne foofu laa koy jeexale am na ci xaside yi génn xaside goo xam bu ma taqawoon nit la may def ci la la muy def la may def ci moom bu ta ko tax ko xaside gi xaside gi dana ko def ci mooy jaalibatul maraaxam kon nag loolu tawfiix la wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh xanaa Talla Diop dina ko ñaan amiin. ñu nekk su ma noppee.